jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bi téebré wa asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi ga xam ne moo di Bawal TV mardi le 10 août ci atum 2021 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekkati fa affiche am solo ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbër day ginnaaw ba ñuy wax waxi tijji lamb déet ñoom day wàcc nañu ca suuf ngir wax li nga xam ne nii moo leen métti ak li leen neex waaye soutien à la famille Demba francs CFA la jox ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër Mbaye Gueye ngir présenté li nga xam ne nii di condoléance samedi waaye ba tey ci xatum sunu lambu sa popularité rencontre avec un marabout malien prédiction de ki nga xam ne moom di Serigne Fallou l'histoire jamais rencontre de ki nga xam ne nii moom moo di Mbaye Gueye ginnaaw moom Mbaye ba mu nekkee lambu day am lu toll ci soixante ba quatre-vingts ci li nga xam ne nii di carrière waaye ki nga xam a gën siiw Modou Lo waaye itam gën a siiw ki nga xam ne nii moom moo di ba tax na bu ñu nii ci xëtum sunu bi nga xam ne nii moom moo di flam ka covid 19 ak li nga xam ne nii moom nawet bi day la xam ne moom moo di la session gérant ouverture en mois de novembre waaye ba tey ci xatum sunu lambu ginnaaw ancien gloire yooyu nga xam ne nii ñoo fi nekkoon te bàyyi koo fi day moom béykay mu fekk leen ñoom ñëpp la ñu xëy di leen rendre hommage ci li nga xam ne nii moom moo di xatum sunu lamb sunu lamb yaatal na ba dindi ci ñoom li nga xam ne nii moom moo di téere waaye ba tey ci xatum sunu lamb ki nga xam ne nii moom moo di irandaw moom la ñu fa fekk muy wax ci ki nga xam ne nii moom moo moo moo di mbéy des ñoom ñëpp monde de la lutte demoon nañ foofee nga xam ne nii moom moo di ca kër Mbaye Gueye ki nga xam ne moom moo di Cheikh Tidiane xam ne nii moom moo di jëy tasone fi moo di Washington waaye ma ngay présenté li nga xam ne nii moom moo di condoléances am RTS 2STV Ndiaye ak ki nga xam ne nii moom moo di Malal Signor Diagne ak ki nga xam ne nii moom moo di ñoo fa nekk waaye bu dee fi nga xam ne nii moom moo di ci RTS ki nga xam ne nii moom moo di Doudou Mbaye guy gi na fi nga xam ne nii moom moo di ca kër Mbaye Gueye présenté li nga xam ne ni moom moo di

ne nii moo di ca rédaction sunu lamb yéen ñi koy seetaan lamb actualité lamb bu ñu demee fi nga xam ne nii moom moo di ca xatum les arènes les arènes ka ñu ak ki nga xam ne nii moom moo di Mbaye Gueye nekkoon ci seen wet di leen boole koog di ñaax waaye ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier chef de file écurie Mbour moom la xam ne moom moo di day Mbaye Gueye mérité un grand hommage waaye ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo roi des di la lutte perdre un monument maanaam monument bu rëy la lamb moom ki nga xam ne nii moom moo di Modou Lo jiital roi des arènes yéen ñi seetaan lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision mag bi nga xam ne moo di Baol TV tudde kenn bu ma topp waaye ku jooy dëpp la ko dalee Thiès xombal bambayal tundangal maak sew kabak laa kër daam kër sayer jallundul ak patar kër yib la sin sambe ngewel sambe kool dalak daaru xafoor siyaare sëriñ ba dellu siwaat Louga Ndar Tiwaawan gaay actualité lamb ak Baol TV